koñ bi gis ñu fi kenn ku dul Baye Goumba kon tey lu mu dugg rek war nañ cee mën a dugg bu dee ay carte membre dafay am ñu koy jaay yàlla baax na ba nga xamee ne sa xañ na oyof na ku ne war na cee mën a duggal sa 200 francs ndax xañ na Baye nañ lu ëpp loolu kon nag li man mooy nañ booloo te ànd di xàccandoo di dóorandoo wat gaal nag ak yëgoo wat gaal ak yëgoo politique du dara du dul ay renseignement rek lu xew nga informé wax ko ñëpp ñëpp déggandoo ko jógandoo defandoo xàccandoo dóorandoo. dama leen di wax ni xañ na politique sama mag daan ko def Cheikh Dieye fu ne xëcc nan ma fa nag masuma nangoo génn dem bi Baye Gumba mi ñëwee laa mas a génne di politique génn di ànd ak moom te ban waxee sama yaay def na ma fu Gumba jëm jëmal foofu fu Gumba nag ma jëm foofu ma mas a jëmee nag jëm naa fa ma mas a ànd ak moom ànd fu a dem. ànd faak man dem naat fa ak joor ak jëm bu ñuy ànd di dem tey jii bu toogee ba ne damay jëmaat fii fa jëm rek foofa laa jëm ndax damaa ñëw fekk sama mag ne ci ginnaawam ñuy ànd muy freeram ñoo maase di ànd doon ay moroom di ànd ba nëgën si ba yàlla def li ko neex kon ba ma ñëwee ci ginnaawam rek laa toog. waaw secteur bi ma dugg moom mooy sama secteur nag parce ñun fii escale deux te Escale de fi lañ dëkk waaw moo tax tey ñu ñëw fi dajale suñ jigéen ñi waxtaan ak ñoom ci li nga xam ne mooy jëm ci njaayum carte bi nga xam ne moom lañ defal suñu parti waxtaan ci ak ñoom buñ ci waxtaanee tamit vraiment engagé woon nañ ci pare nañ pour pour jënd carte yi dama ne pour jaay ko sax mais ñoom seen bopp ñoo pare pour jënd carte yi loolu nag vraiment suñu xol daf cee sedd ñu sant ci bu baax nag gërëm leen ci tam sant leen ci ñoom aussi nag naka jekk nii lañ mas a moom. ñoom ba ma dalee politique ba léegi ñoom sama ginnaaw lañ nekk lu ma nekk ña nga lu ma nekkul nekku ñu ca su ma leen ne nañ dem ñu dem su ma nañ toog ñu toog fu leen ne wote leen fa ñu wote fa fu ma leen ne bu leen fa loolu nag vraiment dafa neex sedd ci xol parce que mënoon naa dëkk ak ñoom ba noppi te duñ mel noonu waaye nag seenu mbaax ak seenu bëgg ma ak seenu yëg ma moo tax vraiment ñoom ñu takk noonu ba tax fu ma jëm rek ñoom dañuy ànd ak man lu mu guddi guddi lu mu naaj naaj su ma leen ne ay ci ñu ay subu des fois damay conquérir ñoo yoo xam ne sax kenn du ko wàcc da ngay xëy rek woo leen ne bu ngeen añee ba pare ñu dese ci kër yi mais koñ bi yëpp ay ñëw bu ñu ñoom tamit lu ñu si wax dañuy kàddu gi genn lay doon su ma waxee ba pare dañ naan loolu nekk ca lañ nekk loolu tamit nag dafa sedd ab xol kon man awma seen fay waaw kon nag dama leen di ñaanal daal yàlla fay leen ndax ñii samay rakk lañ samay jarbaat sama ay soxna ñoom ñëpp lañ te koñ bi fii tamit benn lañ koñ bi benn lañ El Hadj Mansour Touré moo fi nekk mooy suñu xalifa léegi daanaka moom man la yónni ci lépp boole ma ak Omar Touré mais xam na ñun ñooy taxawu koñ bi lu jog zóore ne ma demal mu ñëwee moom laay rendre compte dañ def moom lépp kon moom ñu ngi koy nuyu moom aussi au passage li ñuy def nii sax jot ñu ci woon a waxtaan ak moom ak yëpp mais bu ko déggee tamit xolam daf ciy sedd te tamit moom sama kilifa goo xam ne lépp lu muy dugg dama ciy waxtaan ak moom mais nag lii dañ ko waajalut daal moo tax mais danañ dem ba ci moom ñu waxtaan ko secteur bi nag ñoom bénéficier ci mais demoon naa ci ki nga xam ne moom laay waxtaanal ba waxtaan naa si ak moom ba d'accord na ne secteur bii nañ fi jël ay quelques jigéen dem ñu toog waxtaan ci ñu gën leen a yombalal yëf yi ba ñu mën a jot seen i financement demoon naa fa mais li ma empêché woon mooy li ma demoon dakaar jëli carte yi ñëw ak yooyu moo taxoon amul mais yaakaar naa ne ci biir semaine bi daa fa dem waxtaan ak moom bu ñu ko mënee def ci biir koor gi sax bu jigéen ñi amee jot ñu seet ay quelques personnes rek yoo xam ne bu dee ñaar la. ñu ànd dem fa parce que dañu waxtaanoon ñu ne léegi ñi nga xam ne ñoom la ñuy dugal koñ bu nekk dañ fay jël ñaar bu ñu matee dix personnes ñu def benn réunion jëlaale aussi ci jeunes yi ndax jeunes yi am nañ procès Jakarta waxtaanoon nañ ci mu ne ñu jël ci lu mat cinq wala yooyu bu ñu ñëwee ñu expliqué leen ni nga xam ne moom lañuy def daal ba financement yi gën a yomb si ñoom quoi te duñ ci gaañ. dana defal ay groupement yoo xam ne groupement de dix personnes lañ ndax boo ko defee xam lu bëri day kii groupement de dix lañ koy def. ñi ci jot a wu am nañ jot ñoo récupéré ñoom seen 2 millions kenn ku nekk 200000 ñoom financé nañ leen ba commencé nañoo fay sax quoi ñoom ñu ngi seen 3 mois ñoom ñu ngi ci quoi nag bi ñooñu paree lañ ne léegi dañuy jëlaat ñeneen ñeneen ñi ñuy jël nag dafa am ay conditions yoo xam ne nag moom la ci banque bi doon teg ak yëpp man man leen loolu dafa diis ci jigéen ñi il faut ñu wàññi ko wàññi conditions yooyu ñu tegoon pour ñu bàyyi ko daal ba waxtaan naa ci ak ki nga xam ne mooy seen kilifa ba nee na ma léegi naa ñëw ànd ak jigéen ñi ñu xool nu ñuy waxtaanee ci loolu ba mu gën a yomb ci ñoom ba ñu mën a jot ñoom tamit seen financement leneen li ci des nag mooy li nga xam ne moom lañ leen bëgg a jox mu ñu jàppale leen ko ndax weeru koor dafa metti te gis nañ ni jigéen ñi ñooy dugg si waañ wi suukar si seer na café gi seer na ceeb bi seer na diw gi seer na ñooy yor seen ay yokk di ñu toggal ay ndogu yu neex vraiment loolu nag bi ñu ko xoolee ñu ne nag nañ góorgóorlu ba lu mu néew néew dana am loo xam ne danañ ko teg seen loxo mu néew mu bari ñu jàppale leen ko ci koor gi te xeeb ko lool nag di nag mu doon ay milliards ëllëg ki jàmm ak salaam ba ñëpp di ci mën a jot lii nag buso lii ñoo ko teg seen loxo euh, xeeb nañ ko nag vraiment xeeb nañ ko lii tamit nag taxul may ànd ak yéen te xam nañ ne yéen moom xaaru leen woon sax lii ci man man nag maa ko def pour jox leen ko ci turu Modou Diagne Fada nga xam ne moom mooy suñu président partie ñu teg ko ci seen loxo pour jàppale leen ko ci weeru koor gi voilà mi ngi nii Bousso ok